xawma ay fecc kat ñu jox 50 millions ñu ne ñom lolu xeb nañ ko te ñom jox 50 millions budé ay fecc ci bir mbass mi 50 millions xeb nañ ko kon père ak soutien de famille yi tok ñu tollu ci 75 travailleurs depuis bientôt 12 mois fayé ko wuñu kon ñom lan lañu wara wax ñu nek ci société bo xamné muy société Cheikh Amar mi nga xam ne saay boo ko déggee télé wala radio mooy maye na cinq millions maye na dix millions maye na vingt millions maye na oto personnellement xaw ma Cheikh Amar def na accident daaw yàlla na yàlla wëral cëram yëkkati ko ci nu mu gën a gaawee waaye nag waxtaan wax dëgg ci la c'est vrai que def na accident feebar na ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko mu gaaw ko yëkkati delloo ko ci ay liggéeyam ah waaye defe naa ne liggéeykat yi tamit dañoo accidenté soixante-quinze travailleurs yii dañoo accidenté seen waajur accidenté seen doom accidenté seeni soxna accidenté ndax Sénégal boo amul liggéey tekki woo boo amul payoor nekkoo dara ay ndaw toll ci seen diggu jamono ay retraité sax ñoo leen tane ndaxte retraité sax di nga dem compter tuuti chaque mois wala chaque trois mois ñoom ça fait douze mois dix mois précisément compter wuñu dara jotuñu dara recevoir wuñu dara julli bii passé tabaski bi ñu diggoon leen ne dinañ leen fay quatre mois mbaa cinq mois tous yéen xam ngeen jullit ak julli xam ngeen jullit ak tabaski père de famille jabar waajur doom julli jot ñëpp di waagante marché di uti soble ak pomme de terre ñëpp di waagante marché di uti xar waa koñ bi ñëw takk seen xar ñii takk ñu xar ren ñii reyuñu xar ren ñii lekkuñu pomme de terre ren ñii lekkuñu soble ren ñii seen doom solul yére seen jabar solul yére seen waajur solul yére ndax lan entreprise ak patron boo xam ne depuis dix mois fay ñu leen loolu ëpp na loolu naxar mënu ko weesu méttit mënu ko weesu li motax ñun wa FRAPP ñu ñew toog ak ñom xol nak lañuy fexé dans les meilleurs délais ñu fomp sen rongañ 2008 la entreprise bi soso lañ ko créé 2008 ak légui 12 ans ben tenue rek lañu la len entreprise bi ma jox ben tenue ngeen foog lolu loolu dëgg la ci entreprise bo xamné mu ngi bof ay millions ay milliards de phosphate benn tenue depuis 12 ans Madame entreprise bi dafa juddu feebar waye tane woon 2012 ak légui nak mu mu crise feebar bi mo raw corona ñu ngi coow corona corona corona waaye kat yi li leen dal mo raw corona ah ndaxte corona baangi fi mais ñen yi ñu ngi dund ñu ngi fay luwaas depuis plusieurs mois bailleurs yi ñu ngi leen di banque yaa ngi leen di tongali ndaxte xam ngeen depuis 2008 yaa ngi ci benn entreprise ci diggante bi def nga ay banque yaa ngi leen di tongali convocation commissariat yaa ngi leen di tongali une dignité bafouée piétinée on ne peut plus accepter au Sénégal qu'il y ait des patrons voyous qui fassent ce qu'ils veulent devant la complicité de l'État du Sénégal en toute impunité.

waaye Cheikh Amar itam euh, na delloo si xelam moom ak entreprise am xam ne Sénégal c'est pas une zone de non-droit mënuñu nangu Sénégal nekk une zone de non-droit pour les travailleurs waaw zone boo xam ne lu la neex def travailleur zone boo xam ne da ngay annoncé ne da ngay signalé ne yaa ngi versé I IPM yaa ngi versé IPRES yaa ngi versé caisse de sécurité sociale fekk ne versé woo ko fenn da nga ko lekk da nga ko sàcc. DJ Ndanan DJ samba Alard, ak ñak ak deretu vous bu la situation de ces travailleurs là il y a des drames et des tragédies qui se jouent sëy dina tas kër dina tas xalé dootul dem école ndaxte loy fayé inscription loy fayé mensualité dof dina ci am mais bilan social ne mënuñu ko sétane

mu à petit feu des travailleurs Hein? le corona dans le monde du travail Mouille le corona des patrons voyous qui font ce qu'ils veulent qui se croient tout permis devant la complicité de l'État du Sénégal trop c'est trop ça suffit